sama parcours leader président Khalifa ak Ababacar Sall laa leen wax tuuti pour ñu ko xamul woon ñu xam Khalifa Sall nekk na fi deux fois ministre pendant sept ans Khalifa Sall nekk na fi cinq fois député 1983 1988 1993 2001 ba 2017 Khalifa Sall nekk na fi adjoint au maire de la ville de Dakar pendant 17 ans. de 1984 à 2001 Khalifa Sall nekk na fa maire de Grand Yoff pendant cinq ans déglu leen ma bu baax ndax ñii ma ñii ma kii nii il ma wax parcours Khalifa Sall fu mu jaar ba xam ba ba mun a bokk tey fu ñu war a def Khalifa Sall nekk na maire de la ville de Dakar pendant neuf ans nekk na président de la euh, fii de ses élus Afrique nekk na président de City Alliance nekk na secrétaire général de l' association des des maires francophones nekk Khalifa Sall a été écarté des élections présidentielles 2019 bokk ci woon kon par la politique dañuy wax ne Khalifa Sall incha allah en 2024 dina bokk ci élection yi kattanu yàlla. à l'occasion pour moi maa ngi wax à l'occasion pour moi de dénoncer la pensée unique l'on veut instaurer la pensée unique l'on veut dans la coalition Yewwi Askan dans cette coalition Yewwi Askan Wi di la dictature n'est pas applicable taxaw Sénégal loolu laa leen bëgg a wax pour xam ko Khalifa Sall nekk na koo xamante ni bu njëkk xam na lu dégg nañ lu nekk dégg nañ lu nekk mais Khalifa Sall nekk na leader boo xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo topp si moom ñoom ñooy ay ay responsable dañoo roy ci suñu président ndax biñ si duggee ba léegi kenn xamuñu ci lenn ci yar ak teggin la ñu Khalifa Sall wax ci yar ak teggin ci la ñëwee fii lépp lu ñu si président kii foofu la ñuy def dialogue bi nag ñu ñoo ko assumer ndax boo demee dialogue lépp luñ fa waxtaanee moom ngay assumer te fii incha allah lépp loo xamante ne indi nañ ko fi pour ñu voté ko dinañ ko voté ba mu neex ndax ñu ñoo ko assumer woon ci dialogue ba kon lépp lu ñu assumer ci dialogue ba ñu indi ko fii ci assemblée dinañ ko assemblée dinañ ko assumer ba mu neex ndax tey ak xalifa Sall depuis ban année ak li ma lim fii yépp nit ki nekk ci biir réew mi nekk fi homme d'état lu ne kooku ñëw tey bu nga bokk ci ay élection ngeen ne bokk. kon nag loolu moo dul am ñun la loolu la ñuy wax Khalifa Sall booy boo nañ ñu traité de dealer nañ ñu traité lu ne ñun faalewu ñu leen ndax Khalifa Sall lépp fi mu jaar nii képp ku fa jaar nga war a bokk ci ay élection ñun dañ ci ànd ba mu neex loolu laa bëggoon na wax le ministre maa ngi lay gërëm di la sant di la wax loolu suñu président Khalifa Ababacar Sall dina bokk ci élection 2024 incha allah te lépp lu fi ñëw rek ñun dinañ ko voté bu soobee yàlla incha allah